Assalamu alaikum, bienvenue à travers le Sénégal comme ni ngeen ko rek à l'hôtel Onomo fi l'association My Medina School mo fi ses dix ans d'existence 10 ans d'anniversaire Medina School tam association bo non qui œuvre dans le social et plus particulièrement dans le domaine de l'éducation gis nañ école également tamit euh, fourniture scolaires kit scolaire également bourse yi may euh, yi pour encourager leen en plus de la Medina école Medina, ak Gorée yi nga xam fii si Ndakaaru may Médina School dina leen jàppale dina ñu ngi œuvre ñoom tam également ci région yu mel ni Ziguinchor Louga Saint-Louis Mbora. xanaa rek tey duñ def lu dul dugg ci biir tendre sur le micro le président Mangone Thiam explique également le volet le concept may Medina School eh, tamit dem ci biir soirée de gala bi tamit xool lépp lu ci am. sentiment de joie de fierté de soulagement euh, parce que c'était pas évident quand même ba ñuy door xalaatuñu woon dinañ dox ba egg 10 ans. xalaatuñu woon dinañ dox ba egg 10 ans yàlla suturaal ñu may ñu kàttan beeg wér bi ba ñu egg ci 10 ans donc moo tax tey ñu daje ñu ñëpp tey ne dañ koy féete voilà ngeen koy nan nak? def soirée de gala euh, de gala invité les partenaires invité suñu euh, les sympathisants. Hmm. inviter les directeurs d'école Khalei. yi. ba ce sera l'occasion également de faire un bilan sur notre parcours. parce que nous dañuy une association association malgré que ñu bëri dinañ ñëw fii xamuñu luy association aujourd'hui ce sera l'occasion ñu xam tey My Medina School mooy lan ak My Medina School Sénégal voilà tout tuuti parcours parce que parfois le chemin était parsemé embûches nous ah oui oui embûche euh, bu association parce que association caritative caritative à dire que donc les lu def xaalis bu ñëw dañ Et donc, euh, première difficulté et majeure et qui continue jusqu'à présent, moi, manque de partenaires financiers au Sénégal. Euh, ba ñu tàmbalee di dimbali écoles yi ba macha ñu 25 écoles nous ñuy dimbali hmm. ba tey euh, Sénégal lu mu ci dugal loxoom toq la donc nous yu ñu am yëpp yëpp yëpp yëpp extérieur la France la ci entreprise soutenir donc tamit ce sera l'occasion pour partenaires yi tey ñu xam loolu. Ibrahima Dioum à la Médina. Je suis né à la Médina, grandi à la Médina, réussi à la Médina. Une association qui s'appelle My Médina School, qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Là, j'ai un ami qui, avec le président de l'association, qui s'appelle Cheikh Gueye, c'est cette personne-là, et une autre personne qui s'appelle Ibrahim Sissé, nous avons initié en France. Au Il était en France. Nous qui initié en France lañ def siège bi pour nous mën un point de départ pour faire les distributions suñu première distribution je me rappelle Cheikhou Gueye moo génne benn somam ak Mongone le président aussi moom mi nga xam ne dafa Angleterre xam gis ni c'est un jeune de la Médina xam problème yi jeunesse bi enfant yi di rencontrer vu que soo xoolee de école publique ñun ñi ñëpp suñuy fii que suñu amee benn moyen dootuñu jàngeeti ci école publique yi ñu ci école privée yi moo tax nag mu objectif mooy pour mu relever défi bi tey soo ko defee ba ñu am opportunité feete ko ci avec feetu ko ci benn hôtel bu mel nii invité des personnalités yoo xam ne ak partenaires aussi surtout les banques les euh, comme Auchan on a beaucoup de partenaires yoo xam ne les sponsors yoo xam ne tey ñoo ñu aidé ba tey ñu mën a sax organiser euh, kii bu mel nii dina de gala bu mel nii tey dix ans yooyu ñu nga xam ne dañ ko passé ci sama liggéeyukaay sama participation bi nga xam ne tey dañu naan nit sooy liggéey da nga war a participer ci sociale nga war a participer ci social social boobu noonu nag mooy association bi appel bi mooy tey soo déggee ma ne la c'est une génération bi mu sosoo ak léegi la gala amatul temps

parrainage di parrainer les enfants yo xamné tay suñu de bonnes notes dañuy jël une inscription fay une inscription fay sen scolarité fay seen euh, mm, matériel ñi soxla pour mëna étudier lolu day dem ba un montant de 60 000 qui day parrainer des élèves pas un élève day parrainer des élèves manit damay parrainer des élèves waaw parce que tay dem na ba nga xam technologiquement ñom nekkatuñu fi di sonn ko ni ñu def di ki légui système bi dafa simple. membre may Medina School euh, commencé depuis début bi ak may Medina School buñ koy début bi bon entre euh, étudiants entre amis d'enfance euh, ressortissants de la Médina et que ñu ci bari wuñu école publique mais dañu xamone ni que besoin bi amna donc biñ koy fondé ñi ngi nekk France si lañ wax entre Mangone ak yeneen Kharit si lañ wax si lolu mais bobu amuñu won sax les moyens ñi ngi nekkoon ay étudiants foofu lañ commencé sentiment de récompense aussi parce que lépp loo xamante ni def nañ ko si effort dañ siy content, dañ si am contenté parce que gis nañ am na ay étudiants yu si réussir am ay meilleurs élèves xam si may grâce à may Business School tay ak nañ ben niveau bi ak nañ ben niveau bi donc du lu le président il est là Mangone Cham, avec tout son staff de la Médina jusqu'au même le caméraman euh, qui a, qui a fait le chemin avec nous. <laughs> Donc on le félicite aussi. <laughs> Donc voilà, ce n'est pas quelque chose qui est facile, mais on va continuer à faire. On va continuer à appeler le monde. On va continuer à, à demander du soutien aussi donc c'est pas facile et voilà c'est un cri de cœur voilà et My School c'est une association c'est ouvert pour tout le monde euh, voilà on demande l'aide à tout le monde tous les ressourçants euh, Médina Dakar et partout le Sénégal aussi parce qu'aujourd'hui My School ne se limite pas juste à la Médina on est à Dakar on est en dehors de Dakar on est dans les régions on est dans les orphelinats donc euh, My Medina School suñu partenaire la association la de xamante de day yëngatu ci école yi day gungé élèves yi euh, di école qualité bi donc depuis deux ans ñi ngi am partenariat euh, day ñuy doté xalé yi fourniture dañuy doté également directeur d'école yi ak enseignants yi ay matériel pédagogique dañuy wutal également parrainage eh, élèves yi nga xamante ni dañu gën a ràññeeku ci qualité enseignement bi bu ñu nekkee classe de CM2 bu école di tijji dañ leen di may bourse yu leen accompagner ci seen étude euh, également au niveau de la Médina indi nañ fa benn imprimante boo xamante ni capacité bi macha allah donc da leen di dimbale ci évaluation yi ak yeneen ak yeneen vraiment yu baax yu ñuy def euh, tey nag cérémonie bi dafa tombeek également ñuy rendre euh, honneur euh, candidat yi nga xamante ni euh, dañoo ràññeeku ci concours bi ñuy wax olympiade mathématique ak dictée te ñu leen di féliciter tey ci sixième édition bi ci lañ leen di jox ay prix donc loolu moo tax My Medina School donc invité ñu man ak directeur d'école yi ak élèves yi nga xamante ni lauréats yi voilà. daal maanaam yéen may Médina School gis ngeen njëriñam ci njàngum xale yi également tamit li wàllu jëm ci maîtres yi ak enseignants yi tamit gis nañ njëriñam daal loolu mun nga ko seede. tout à fait xam nga bu fekkee ne école danga koy dimbale xale xam nga bu école di tëji nga jox ko fourniture yoo xamante ni daanaka moom lay utiliser ba euh, école di tëj mooy bu ñu ubbee rek dañuy mën a def ubbi tey jàng tey parce que fourniture du poser problème ci environnement scolaire yi tamit. Euh, am na ñoo ñu fa def yo xam dañuy euh, améliorer qualité apprentissage bi maanaam euh, mur yu xawa magat ñu retaper ko réhabiliter ko robinet bu sori ñu jegel ko accompagner len ci concours bi nga xamanteni dé école tijji rek xalé yi dañuy xam dañuy dem ci jonganté te ku nekk day bëgg am ndam donc loolu euh, concurrence bu seen boobu muy def ci biir xale yi day day day accompagner qualité enseignement apprentissage donc vraiment muy lu am solo te loolu yëpp euh, ñoo ngi koy constater ci may Medina School depuis dix ans. Euh, di wax effectivement bu fekkoon ne sénégalais bu nekk ndaw bu nekk. dugal na loxoom ci jàngale bi comme ni ko may Medina School dugalee donc suñu jàng dina gën a jëm ci kanam ndax ku nekk xam na ne njàng mooy yorum réew donc suñu futur citoyen yi bu ñu jàngee njàng mu mucc ayib day tax ñu mën a taxawu seen dëkk jëmale ko fi nga xamante ni moom lañ bëgg a jëm. waaw d'abord di leen nuyu di nuyu waa Medina yëpp di nuyu seen site bi euh, Dak Medina euh, di la nuyu nuyu sa caméraman donc euh, di félicité aussi may Medina School. ci euh, action yu ñuy faral di def euh, képp kuy dimbali xale rek xam nga loolu dañ la fierté la en fait dañ lay sant di la ñaanal pour nga gën a mën a am doole aussi pour gën a mën a dimbali xale yi parce que xale yi bëri nañ te ñi soxla bëri nañ aussi. voilà pays on n'est pas un pays développé mais en voie de développement donc euh, il y a des écoles ils ont besoin de soutien il y a des parents d'élèves ils ont besoin de soutien je pense que ça fait quelques années quand même que nous avons appelé My Medina School parce que les loo euh, comme je t'ai dit hein euh, toucher les enfants parce que c'est eux ils sont c'est l'avenir de notre pays en fait

donc euh, sant yàlla la sant yàlla la te ñu ngi ñaan di koy gën di man pour gën di man di jappalé euh, xalé yi parce que amna ño ñoo xamante ni amaana bëgg nañ jang mais xeyna duñu am moyen donc euh, su dee amna nañ ñu ci jël pour pousser leen inshallah xeyna xëy na ëllëg dina jur leneen. My Médina Schools Mangone en tout cas ça fait des années ñu xamanté et bi ñu présenté bi mo ma lan lay def rek directement je me suis dit qui ni c'est quelqu'un avec avec qui je pourrais composer. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est les enfants. Euh, par rapport aux pouponnières il m'a collecté le don donc quand je vois quelqu'un qui aujourd'hui si si gouvernement bi scolariser xale wala fournitures c'est lui avec ses propres moyens qui commence avec entourage pour mun a jox fournitures scolaires et ba ay partenaires fekk ko si mu mun a avancer c'est une grande fierté de faire partie soirée yu mel nii nga xamante ne lu mu bon société bi ndax jàppale 5000 000 ñu ce c'est pas rien c'est pas des l'ol message bu may lancé ne na si pour jàpp parce que vous voyez, bi ñu nekk ces élection il y a eu tous les candidats bi ñu ñëwee slogan ils vont bâtir un autre un nouveau Sénégal bon xamante Sénégal dañ koy basé sur la personne c'est-à-dire si être humain les ñuy gën a ou wu si Sénégal bi nga xamante ne le la ñu bëgg a et être humain bon, pour man bu ñu ko bëggee tabax tey euh, éducation conditions sine qua non la il faut ñu xale yi jàng il faut xale yi am xam-xam il faut xale yi xam fan la ñuy teg seen donc My Médina School si loolu lay parce que am na famille yu bëri tey lu ñu lekkal lu ñu naan la ñu tal donc ñoom affaire jàng second plan lañ koy teg donc bu fekkee ñooñu ku mel ni My Medina School mi ngi fi di leen jox ay fourniture scolaire di leen jox ay bourse waxuma la partenaires yi rek nga xam ne ñu ngi ci privé bi di ci jàpp pour am visibilité seen tour day gën a si ci lu mel noonu mais les autorités ils doivent pousser ce genre de d'association vers l'avant gën leen encourager parce que plus ñu jàppale leen plus ñu def une ligue. Moins assurer l'éducation à tout un tout un tout un chacun assurer l'éducation à tous les enfants vraiment il faut soutenir My Medina School. Je suis Mangone Cham, euh, président fondateur My Medina School Africa Kids donc ñu daje fi une taille pour euh, souhaiter les 10 ans de l'association donc nous moo nekkoon dîner de gala 10 ans bi. man bu ma je suis Medina dama amoon chance jangé ci école bi nga xamanteni ay nit ñu am xaalis ñoo fa doon jangé ay tubaab sax man sama sama maître CP sax tubaab lool biir Dakar alors que ñi ma dendaloon ñi ma daan andal ñu ci bëri samay kaa la ñu woon manam bu ñu jàngee mun na bu ñu demee jàngi mën nañu bañ am ciiri donc lool yàgg ma travailler de telle sorte que amna na instant ma bon il faut que say bu ko yalla maye ci temps ak ci jot ñu def dara pour mëna rétablir cet équilibre cette différence là donc rétablir la balance donc moo tax 2015 bu ñu demee ba yàlla may ñu euh, Talgi, gi ak tan ak wér ñu lancé Maya Medina School euh, tàmbali boo gis sax ci benn commencé ñu ne dañuy commencé benn école boo déggee tur bi nga xam ne kon Medina la commencé 2015 ñu def benn école bu El Hadj Mour Diop mu neex 2016 ñu dolli 3 defaat après def 5 après def 7 def 9 11 ba à la rentrée d'octobre on est à 24 écoles te li ci le a neex li ñu taxoon jóg au début moo nekkoon ni que Médina xëy du fa jàng te amul bikk ak saak loolu def nañ ko baru génn Médina ñu ngi Touba ñu ngi Ziguinchor ñu ngi Sédhiou ñu ngi Kaolack ñu ngi Sant Talibou Dabo ñu ngi Gorée ñu ngi Parcelles ñu ngi Tëngéej léegi ñun suñu membre yëpp euh, ñu uteeg euh, par exemple association européenne yi ñoom ñiy liggéey si association bi am ay employé dañuy am salaire bokkul ak ñun ñun dañuy am suñu liggéey ba pare di volontaire ñu si association bi donc entreprise yi ñuy liggéeyee ñooñu ñoo am un service RSE donc ñun dañuy dem déposer fa ne leen man mii fii laay liggéey ci entreprise bi waaye dama bokk ci benn association maa ngi leen di ñaan association yi ngeen dimbali ngeen boole ci waaye nag du dangay ñaan rek ñu jox la da ngay déposer dossier joxe sa rapport d'activité ñu càmbar ko xool ndax li fi nga tolloon daaw ak ren benn laam déet xool sa projet def sélection ne entreprise yi dañuy jàppale yàlla dimbalul nañu nag ba entreprise bu ñu fëgg en tout cas en France pas pas au Sénégal mais en France entreprise yi ñuy fëgg.

majorité membre yi ñi nga xamanteni ño bokone classe quelque part soit primaire soit collège ñoo ñooy majorité membre donc ñooñu xam naa leen depuis des années xamna naa seen jikko xam naa ni ñuy xam naa seen seen seen bëgg-bëgg ci éducation donc ñoo ñoy majorité membre yi nga xam mom la am et bien évidemment amna ay membres yu ñu rejoindre au cours mais ku ci ñew dafa am lu ñu teggo ku ci ñew bala nga ne bo né da nga bëgg a dugg lay dañ lay tegal charte bi ne ñun ñi lañuy doxé li xew suñu biir duñ ko génne dañ ko régler dañu ko régler suñu problème bopp ne la euh, sa njabot ak say soxla yow mo wara prioritaire ak association bi donc may nit ñi liberté bobu nga xamni pour ñu bañ ko faté quoi mais seen njabot moy priorité ak association bi ba pare aussi na len on travaille de manière professionnelle donc li ak li ak li ak li ci tâche dañ la ko jox oyofal ko nak waye nak 10 ans dafa bëri di nga jéki jéki am ñu bayyi waye on est comme on a une vingtaine man ku baye rek pas ku baye mais ku ku ku effacé wu pendant on va dire 3 4 mois parce que par exemple famille bi soxla man le président ma ñëw def li mo waroon def donc nekkuma nag président rek toog nii ci kaw na non non j'organise d'abord mais képp ku ci am tolof tolof mëno liggéey li association bi laaj ma wacc ñëw liggéey ko même bu jaré ba 3h du matin ma def ko ñom xam nañ lool sax non lañuy défé defee dañuy jambalante motax voilà on l'a fait c'est une famille en fait. on a au début on avait liñu ñu bëgg lu ñu rek mooy joxe fourniture KX0 après ñu dem ba ci biir ñu ne ñu ne waaw xale yi lañuy dimbali wa primaire wa bu ñuy dem sixième lycée ñu ñuy def ak ñom dañ ni baye ak seen problème dañuy ñëw fajj problème pendant primaire après ñu baye ñu yéegaat am même problème ñu ne bon duñu mëna mën dimbali ñëpp waye école bu nekk meilleur élève CM2 buy dugg secondaire dinañ ko jox dinañ ko jox bu 65000 donc ñu ñoy dem toppatoo lepp ut ku ko fayal woo parents mu ñoo jox ko xaalis inscription bu demee inscrit ñëw ñu jënd fourniture yëpp bu desee ñu délo ñu jox ko xaalis bi donc yooyu nonu on en a 65 ba ci yàgg ñu ne waaw léegi ñi ngi dimbali xalé yëpp waaye ñi ci gëna xarañ ni ñuy def ak ñom ñu indi concours d'excellence moy concours de dictée ak maths bi nga xamanteni dañu jël lepp denko wa waa IEF waa IEF Dakar Plateau ki doon joxe prix moy inspecteur de l'éducation ñoom ñooy jàngalekat yi ñun lu ñu mën def rek moy organiser financer waaye ñom ñoy définir sujet comme examen national ñooy defar lepp ñoñu naan ñi ñooy trois premiers ñi ñooy trois deuxième ñu ñew xam ne léegi programme bi ñu jël par rapport ak environnement nak aduna bi fimu toll ni toll na fo xamanteni quelqu'un ne peut évoluer sans ne pas ignorer l'environnement. Donc, c'est ce qui est Avec ONG, Bioforce, euh, nous commençons un programme de tri des déchets plastiques. Madame, nous sommes dans l'école. Vous avez vu les plastique fort, vous avez budget plastiques. Les déchets sont les plus Vous pendant deux ans. Machallah, Bir Medina, nous avons fait 95 kg de sachets plastiques. Nous avons plus de 100 bouteilles. Bouteilles, nous avons fait des bouteilles. Nous avons fait des bouteilles.

en 2019 lañ ko dégg ñu un marche 6 km euh, par jour pour aller à l'école ñu dox ba ñaaxaar fekk ko fa gis ni lii dëgg la boobu léegi bàyyiñ ko tey moo ñëw taxaw waxal ko boppam donc voilà on on suit on suit les enfants on suit les résultats et même pale yi ñuy parrainé sax dañ leen di topp premier semestre ñu jël parents yëpp bulletin, yëpp muy 65 bulletins travail administratif bu lourd yónnee ko 65 email ñi leen fayal deuxième semestre ñu récupéré waat 65 bulletins yi yónnee waat ko 65 email ñi leen fayal ñu leen ah seen xaalis kat fii la duggoon résultat baa ngi nii kii jar ndax amane bu añee du reer waye mu ngay génne moyen 17 18. soirée de gala bi bëggoon nañ ko def euh, des années avant wa dañu ne nañu bàyyi ba 10 ans parce que 10 ans quand même c'est quelque chose je pense que loy def depuis 10 ans kenn mënatul na tabel ndax yaangi ci def te sentu wo ci yàlla am déet parce que voilà 10 ans lu deug la donc soirée bi ñu defoon tey c' un moment pour ñun ñu inviter suñu partenaires ñu jappalé que ce soit au Sénégal et à l'étranger étranger ñu xam que au bout de 10 ans il y a jox ñu lay bindal ay lettre len wax merci li lañ ci def ñu gis vidéo yi euh, pour ñun aussi ça nous a permis de se remettre en question xol liñ qu'on doon def ba tay est-ce que qu'on lañu égal def est-ce que dañ koy yaatal est-ce que dañ koy wañi donc voilà 10 ans c'est je pense que c'était un très bon cap et ça, ce qui m'a fait plaisir aussi moi que les partenaires sont très contents voilà euh, qui nous accompagne c'est-à-dire euh, ah quoi partenaires yi waouh alors euh, je sais pas si vous l'avez vu mais on a eu le directeur général de FBN Bank. Euh, il a, il, a, il a ramené beaucoup de gens de sa banque, plus de 10 personnes. On a le RSE de Auchan, euh, aussi ils nous ont acheté une table avons une entreprise bu ñu Tap Tap sen man Londres di Khalis, Sénégal foofu à chaque fois Niki Degis, Orange Money rek man ci application boobu laay jaar euh, Securiport ñoom ñoo gérer sécurité aéroport bi am nañ Price Waterhouse PwC benn cabinet benn cabinet audit la am nañu Mercure et voilà et, et je pense on avait aussi pas pas une une une, une entreprise mais association Idrissa Gana Gueye man Londres la dëkk au Faux Hope ñoom ñoom quand ils ont fait leur leur événement dañ ma invité ma ñëw tey ma daloo leen njukkal def sama gala invité la ñu ñëw et je pense que gis nañu ni que li My Medina School di def ak ñom li ñuy def benn la chaque année dañuy jël li ñuy aidé woon ñu yok ci ñaar wala ñet donc daaw on était à 26 écoles tay ren jii bëgg nañu capé 29 à 30 29 à 30 trois écoles yu bëss yi ñu ci yokk tànnaguñ len mais on a une manière de choisir c'est-à-dire que dañuy dañuy cible dañuy xol localité bi est-ce que fofu ci localité Sénégal bobu ñu ngi fa région bobu est-ce que école primaire publique le est-ce que est-ce que est-ce que ñu am nañu suñu critère Bob, donc rentrée bi ni bëgg nañu aider en tout cas plus de 6000 enfants jox leen sen cahier de stylo euh, les enfants qui étaient parrainés l'année dernière 105 euros automatiquement les renouveler sauf que les enfants ci moins de 12 parce que c'est un critère d'excellence mais la plupart du temps ils ont plus de 15 16 17 donc plus New York ci les 165 là plus New York ci nous sommes en train de des 26 écoles donc presque 100 enfants qui seront bouchés. Nous avons un contrat écrit avec le centre Talibou Dabo ça fait des années que nous faisons. De la même manière que nous avons des bourses de parrainage à enfants, il faut vous sentir que vous 10, 15, 20 ans, vous avez des parents, des gens en charge à travers nos programmes de parrainage. Si avons fait des gens qui chèque, il n'y a pas longtemps qu'il faut un chèque de 1 million. Mais l'autre, c'est que si vous comme je l'ai dit, pour l'air, il y a papier qui est le logo de Maïa Medina School, le choses centre, le de bi quartier bi bind turam moo jox 65000 yi santé bi lii la ci wara a def bind turu bind classe am bind ñu signé centre bi signé ñu yar feuille bobu jox ko ne ko am. pour la traçabilité. di di remercier vraiment partenaires rek parce que tay ji mom li bu taxawé suñu partenaire tax di remercier vraiment hôtel Onomo parce que on a voulu faire ça dans beaucoup d'endroits Onomo nous a dit on connaît My Medina School venez je vous donne la salle gratuitement fay ñu leen salle bi ce qu'on a eu à e payer moo moo nekkoon le menu mais je pense que amul benn hôtel fini nii ci Dakar bu bu ñëw nañu kaay ma jox sama salle parce que ils nous connaissent depuis très très longtemps donc je remercie Ono Mod je remercie tous les partenaires euh, beaucoup leen lim parce que mon adjoint mais en tout cas ñu remercier tout tout tout tout tous les partenaires et puis di ñaan aussi

ci ça nous a un peu permis de découvrir My Medina School ñu ko sosee seen i modèle de financement et découvrir les hommes qui le composent liñ ci war a mën a jàngat rek nga dañuy pour l'éducation pour sur le social particulièrement sur l'éducation ba étendre étendre ko si yeneen domaine Amna solo Medina len départé dugg nañ bir Sénégal jaar nañ Ziguinchor dugg Mboro jaar Thiès dans beaucoup de contrées du Sénégal vraiment nous nous jar a parce que tamit nous xam nous da nous ma dimbali samay nous jaar fi nga nous nous devons nous jaar nous xam fi nga fi si difficulté vraiment euh, parce que il y a la transparence y a la clarté y a la traçabilité également nous nga xam fonds Nous vraiment nous les autorités à appuyer. Euh, My Medina School Africa a aidé mm, pour nous dimbali tamit seeni rak yi indi loon tay ci anniversaire My Medina School di fait c'est Malik qui était aux caméras euh, le directeur man Moussa Laye à la présentation di leen jox